asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi dalati leen ak jàmm ci kër gi di jamono media and products kër gi nga xam ne saa su ne jamono bu nekk day doxee doxinu kër mooy jéem a gees gestu lu ay njabootam di dundee jamono bu nekk jéem a gestu lu ay dëkkandooram di dundee jamono bu nekk jéem a gestu li ay jàmbur di dundee saa su ne kër la boo xam ne këru ñëpp la seen mbokk la nag Salih Thiam moo leen ay defal ci kër gii di Jamano Media an Product am programme bëgg sa nañ bàyyi xel nag gis nañ beneen jamono reet jamono waaye ñun ñooy green jamono am na jamono tiim daf di am nga Gambia fi gars yi dañ ñaata at ñu ngi fii kenn xalaatul am turi jamono ñun ñu xëy indi jamono am ñu xëy fale indi jamono amu problème lañ ko fekka suñ jamono bi ban jamono green jamono yàlla tere pilier suñ ko ko du pilier kon ñun jamono green dañuy dem ci kanam te kenn duñu stop la Salih ñu bi te del Welcome to Jamano Media and Products. We are a team joined by passion to build brands. We are Germano Media and Product. We take our client business to new heights and give our people reason to watch and listen. We turn an ordinary to extraordinary one. Visitors today on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. We are not just promoting brands. We are building a community of customers. We do sell product like smart TVs, mattresses, routers, handbags and more. We do entertainments, music, news, drama, politics, religious and timely implement strategies. We ensure constant growth of your needs in digital world. We are the one world with vision to transform the future of media and business. We are Jamano Media and Products. Don't forget to subscribe to our channel to get notifications anytime we uploaded a new video. Okay, kay dellusiwaat nañ uh, gannaaw bañ nuyoo déglukat yi ñëpp ak seetaankat yi ñëpp di gërëm nag bu baax liggéeykat yi fii xale yu baax xale yu yaru ñoo fi nekk saa yoo buggee liggéey dinañ la defaral liggéey bi noo ko buggee parce que koo xam ne wax rek la mun suñ ko gisee mu leer waxam leer kon ca liggéey bala du ci wax ja kon ñay liggéey jërë ngeen jëfati yàlla neen yàlla aar te yokku leen te ngeen dem ba fu ngeen tollu ngeen romb fa di sutur lu ëpp lu ngeen foogutoon loolu yàlla mën na ko dina ko def fi may waxee tey nag mooy ñu ngi jub si si mbiru député yi nañ bàyyi xel ci mbiru député député du caaxaan te képp koo xam ne sànnil nga députéel juróomi at war nga jàngaat sa boppu député boobu lala la defal ak lan la def lala la defal ak lan la def parce que député ñaar la député bi nga xamantene ni defa def ci ay loi yu bax ak loi yi nga xamantene ni soppi yenen wala loi yu bon lolu mbiru rew mi la ak it alal bi nga xamne nguur gi def ko euh, euh, lepp di lebi député yi ñokoy garantie garanti parce que ñepp xam nañ président mënul garanti bopam sa bay garanti rew mënu ne parce que président mom kese duñ ko jox ay billion pour rew mënu ne amul président bu mën a garanti boppam bay garanti réew kon soo gisee président di mën a am garanti ci yeneen réew yi député yi ñoo ko koy dooleel ba pare nag alalu réew mi lay doon kon député yooyu noonu nekkoon fa juróomi at ci leb ci ay bor ci ay loi yow mi leen sànni loon am nga raayit xool luwaa yooyu dem gëstu ko balaa nga leen a joxaat beneen bu ci tegu mooy nit ku nekk fi nga dëkk ndaa député bi ba mu faloo juróomi at ndax député boobu am na lu mu leen defal balaa ngeen a falati député parce que nag nit ku nekk war nga xalaat ni ngaa liggéeyee moo tax béykat bi day béy ba ci kanam mu ñëwaat béyaat ba ci kanam mu ñëwaat béyaat béykat bu ne xam na li maa wax doo béy benn yoon bàyyi sa tool kon mu booy kon député del si waat nañ ren pour ñu sànni laa leen carte juróomi at lan lañ leen defal yéen lu jara laajte la de lan la ñu suñ député bi defal député dëgg la mënul leen jox l'hôpital mënul leen jox school mënul leen jox yoon loolu nguur la waaye mu ngi am fukki junney dalasi ten thousand dalasi boo xam ne saa yu toogee toogu national assemblée su paree dañ ko koo jox bokkut ak salarié waa léegi député bi nga xam ne fal ngeen ko juróomi at lan la leen defal ndax indi na fa machine yi wol ndax indi na leen teen ndax indi na leen boohul ndax indi na leen gaadin ndax soppi na doxinu wér-gu-yaram bi ca ca dëkk ba lanaan lanaan lan la ngeen mën a laal def na ko ndaa def dee fekkee dëj dëj yi ndaa def dee fekkee ngénte yi ndax néeg yi daanu ca dëkk ba moom dafa participer ci ña leen dimbale parce que nit ki dafa toog ba nawet néegam daanu ndax député bi dafay ñëw nit ki dafa toog ba nawet amatul dund amatul dara ndax dafa ñëw xool nemmeeku yéen seen dundin des na ci yéen kàdde dafa dess ci yeen ndax yeen député yi ngeen falon juromi at ndax député yoy matal nañ sen kóllëre ak yeen man suma yoon ko ci wax rek la ci mun parce que man li ma def man xamna ko way yow mi ma seetaan yow mi ma deglu lo pare légui xolal bu baax la la sa député defal lan la la sa député defal ka nga xamne mu ngi dekk ba fi daw si Firdawsi député bu fa nekk la la leen defal it's very important ku dëkk Firdawsi xalaat man suma député bi lu ñu defal sànnil nañ ko karta juróomi at waaye lan la ñu defal waxuma lu mu defal réew mi de waaye lan la ñu defal ñun waa Firdawsi man ma dëkk ba ñaani ja dëkk caameen lan la suma député def balaa maa falati député foofu jàngat la ñu ne nit ki foofa kastaloo soo fa dellusiwaatee war nga xool lala daane waaye toog ba député bi dellusiwaat xamuloon law ki nga fal lam la lam la defal mënoo cee wax dara loolu ku gën a yées ci réew mi suñu koy ut yow bokk nga ci ku gën a tardé ci réew mi suñ koy ut yow bokk nga ci parce que nit ku nekk soo ko yónnee la ko yónni kay su dellusee da nga ko war a laaj yow lu ma la yónni naka la ndax man na walla matut waaye nga toog national assemblée juróomi at li laa woon ne député yi paase ni député yu leen gën a yées amul ñu jox leen ay oto yu ees dama seet seen oto yi dañu soxoor dañ iñaan jël nañ oto yi yëpp yàq ko yow député ñu may la jox la moto ñu ne la moto bi pour national assemblée wallahi Ousmane sax ku ko mayoon moto ne ko moto bi pour jamono la dee ko dawal su fekkee ku baax la soxorut iñaanut iñañut dafa téye moto bi comme motoom dina ko respect dina ko defar yëpp waaye député yu ñu moto yëpp seen moto yëpp yàqu nañ ngir lañ dañ soxor parce que dañ jël député moto yi def ko seen moto boppa def ko seen moto moto jàmbur defuñ ko seen moto boppa de dañ ko def moto jàmbur oto jàmbur oto jàmbur lañ ko def jël oto yëpp yàq ko député yu si dese dese oto yu baax da nga koy compter te ñooñu soo xoolee oto yu ñu leen jox ñu téye oto yi ña téye oto yi téye moto oto yi oto yu oto yi nekk oto yu baax oto yu mucc ayib contrôle moto yi soo demee xoolee nit ñu baax lañ nit ñu soxorul lañ nit ñu am xol yu set waaye genn wàlla député yëpp yàq nañ seen oto yi ngir lan dañ téye oto yi oto yi oto jàmbur la mën naa am ñu fekk fa juróomi at man na am duñ fa tok juróomi at kon bala ñu fa euh, def def fa juróomi at man na am duñ ñewati juróomi at auto bi dañ koy saax saaxee yaq auto bi tasaré auto bi lolu moy suñ jiko ñun kon tay képp ko xamné falon nga député war nga xalaat député bima fal ni tay lan la ma defal amna deputy député yo xamné ba ñëw falu day ñëw kër to kër di nuyo di jaay jomba ñaaw di ñaay di jaay baax di jaay yaru waye bañ pare anañu ñu ñëwoon ci kër euh, euh, euh, si suma kër ne ma dama bëgg ngeen fal ma ñooñu bañ faloo lañ fa del kéro kéro lañ jëj ci kër googu lool mo fi nekk di kon yéen ñuy fal am leen xel ak xelaat xel du jëriñ xelaat xel du jëriñ wudul xelaat doomi adama bu la upp xelaat mo la gëna mat ngeen toog foofu rek nit ñëw ne la kii suma mbokki baay la sànnil leen ko kii ñëw ne la man suma mag xaritam la ngeen sànnil ko loolu moo ñu rey si député yi passé moo ñu rey ay mbokk mbokk juróomi at yi nag mat na liggéeyu nguur amul mbokk sànni carte amul mbokk interest la jiital ci réew mi nga soog a ñëw sa yëfu bopp loolu mooy réew mooy yóbbu réew loolu nag soo ko xamut fa ngaa nekk rek mooy di yalang yalangi te yalang yalang baaxul ci doomi aadama bu war a yóbbu réew réew bu gën a dellu ginnaaw mooy réew yi nga xamante ne nii seeni ni dañuy yalang yalangi kër sax góor ya fa nekk suñ nekkee góoru yalang yalang jigéen ñi ñoo leen ay amee kon nañ am fulla fayda suñ député yii di ñëw nii fu waay mën a ne amal fulla ak fayda nga xool sa député bii ñu indiwaat ak député bu war a ñëwaat yow ñoom ñaar kana ci gën waaye am na député yu dellu ginnaaw de député yoo xam ne bañ leen sànni lay karta lañ gis géej seen tund yi am na ñoo xam ne keroog bañ wiinee lañ jël seen baay ak seen yaay ñëw xoolal député yi luñ def dem jël euh, laani jaambur risaaf laan boo xam ne dañ ko fa jagleel pour réew mi ñu jox leen ko député bu ne am nga kër ndax loolu lañ leen fale woon te kër yi ñoo ko moomal seen bopp kenn moomut ko ba pare ñu laajte waat fifty million pour ñu tabax seen kër yi hmm. xam nga ne ñi seen bopp lañ doon liggéeyal ñii liggéeyaluñ Caam ñii liggéeyaluñ Ousmane ñii liggéeyaluñ Jaaxa liggéey luñ sirif seen bopp lañ doon liggéeyal juróomi at nga am kër am wan million ami salari bu duuf takki jabar jeexali school graduate university yow kay sa ginnaaw bandang yow réew mi ñoo la defal yow de tekki nga ci réew mi waaye yow de tekki wuloo réew mi waaw tekki nga ci réew mi tekki wuloo réew mi da nga ko ñàkk jàmbur dereti jàmbur muucu ko ngeen dem toog waaye loolu du leen jig di su fekkee ne réew mi ngeen jëfandikoo ba xëy am xàqu réew mi su leen dalee fu ngeen jëm kon yéen ñuy sànni karta góor góorgóorlu leen bu baax xalaat leen bu baax ñu ngi ci jamono bi te duñ ci deñ di ci wax ba kero ba ñoo sànni karta parce que su fekkee ne tey caméra bi mu ngi ci man waxukaay bi mu ngi ci man ba pare waxuma su ma dee damaa la yoog yàlla di dañoo waa ñu ne waa ana caméra yi ana radio yi ana téléphone yi ana nangam yi lu tax waxu leen kon dinañ wax lu commencé tey ba ñooy sànni carte duñ den di leen wax bàyyi leen seen xel ci ñu ngi naa sànnil carte dañuy lebi bor te ñoo koo garanti te ñun ñoo koo fay saaku maalo léegi mu ngi ci one thousand five hundred and eighty dalasi saaku sukur bi junney dalasi bidongu diwlin presque ñaari dala dalasi l'hôpital yaa ngi garab amut dangaa jóge ko Makaati Bansang ba Farafeñe diggante boobu benn scanning machine nekkut fa waaw fa fa la nit ñi jëm Westfield Tabokoto ñetti paas public transport te lii yëpp liggéeyu député la dañ ko war a uti puus nguur gi ñu lebi xaalis ñu jëndi ay boos nit ñi di ci dugg di fay mu wàcc mu wàññee coonoy nit ñi waye député bu nek am nga pick-up di ñang ñangé yang am nga sa kër di ko lebih lebi xaalis ci nguur gi xamoo da nga dellusiwaat doo dellusiwaat soo dellusiwaatul fo koy fey nañ baye xel ci lolu ñu ngi ni nak rew ma ngi ni député ya ngi ni yow muy ya ngi ni si sa loxo seen bokku la won salih cham ci jamono Media and Product ñu ngi leena ziaré yeen ñep di ñaanal nag yi place bi di Mr Jaha di ko ñaan yàlla rek ah, di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa taala kenn bi diis na waaye yàlla na woyof ñëpp ñu ñëw seetaan ñëpp ñu ngi leen a ziare bu baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.